Abdou Khadir Sylla nag rahimahullah daal di ne conti daal di continuer wax ne maanaam musxaf yi lañ daan bàyyi muy dugg ak li nga xamante ni moom mooy téere yi nga xam ne téere yi def jëm ci wàllu ñaan la xam ne ñaani suuf ya man sax téere ñaan yoo xam ne ñaani suuf ya la sax man laa xamul man ñaan moom ma yaakaar ne ñaan moom ñaan la rek ala kulli xaal mi ngi noonu. léegi nag moo wax ne maanaam ki nga xamante ni moom mooy William Ponty loolu mi ngi amee woon ci sana 1911. jàpp leen date bi bu baax a baax Abdou Khadir Sylla nee na décret bi mi ngi amee woon ci mille neuf cent onze mille neuf cent onze dégg nga léegi euh, léegi décret boobu nag naka la ci Mourtala Gaye mën a sukkandiku ba wax ne moo waral ñi nga xamante ni mooy sunu mag ñi jotuñ li ñu waroon a jot ci ay téere lu am 1911 parce que cent vingt 1922 1844 uh, ci la alhaji abdoulaye niass gane aduna kon 1911 fekk na ko mu am juróom benn fukki at ak juróom benn wala juróom ñaar serigne touba mi ngi gane aduna 1950 1853 kon normalement 1911 for na ko fekk mu am juróom fukki at ak juróom benn wala juróom ñaar alhaji malik itam noonu war na ko fekk mu am juróom fukki at ak li nga xam ne ak juróom-benn dégg wala juróom-ñaar mag mu dund ba am juróom-benn fukki at ak juróom-benn euh, juróom-benn fukki at ak juróom-benn nag wala mu dund ba am juróom fukki at ak juróom-benn kooku dama ne lépp lu mu waroon a xam xam na ko lépp lu mu waroon a xam xam na ko rawatina mag ni nga xamante ni moom dañ daan dañ daan mokkal li ñuy li ñuy li ñuy jàng maanaam dañ ko daan mokkal ndax ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Omar Fouti wax nañu ne mokkaloon na Sahihul Bukhari ñoom mokkal da leen a yomboon dal njàng mu yomb mi ñu jàng ci jamono ji moom ñoom dawuñu def noonu dégg nga kon ñi mënu leen a concerné waxuma laa nag di concerné ay El Hadj Omar El moom moom moom jamono yi muy dund dem na ba Caire dem dem itam fa nga xam ne moom mooy Arabie Saoudite te génn àdduna bu yàgg décret bi soog a am. Amadou Seck itam deesu ko woo de de deesul wax mukk ne la mu waroon a xam xamu ko euh, Maba Jaxu it noonu kon mi ngi noonu. kon ñu xamne dal mënu leena concerner parce que fekk nañ ju dund lu mat juroom fukki at ak juroom ben, ñen ñi dund juroom ben fukki at ak juroom ben kon ñoñu lañ waroon xam xam nañ ko décret bi ñuy wax euh, décret bi nga xamanteni mom moom wax sax ta man amaguma ci firnde bu leer parce que ci waxe Abdou Khadir Sylla rek ci la sukkandiku waye gisuma décret ba gisuma ko ci fenn ci archive yi loolu itam dafa wara leer léegi du ma yem ci firnde yi képp pour wane ne mag ñi lañ waroon a jot jot nañ ko déedéet dafa am benn taalib Serigne Touba ku ñu wax Mouhammad Abdullahi Ibnu Ubaydir Rahman al Alawi Ash-Shinqiti mu taalib benn téere boo xamante ni daf ko tudde an nafaxaatul miskiya fi siiratil bakiya téere boobu mu ci jaar mu ci wax jaar-jaar yi Serigne Touba te téere bi nag ngeen bàyyi xal ne 1904 la ko bind 1904. la ko Abdullah ibnu Ubayd Rahman al Alawi Ashanqiti bind kon bi koy bind Serigne Touba mi ngi fi woon ci kanamu Serigne Touba la ko bindee léegi nag moom ci boppam moom moo doon nettali moom euh, borom na an nafaxaatul miskiya fi siratul bakiya moom taalib Serigne Touba la woon. dafa wax ne Serigne bi dafa sàkk woon ci moom mu ko téere imaamu Ahmad ibnu Hanbal ak téere imaamu Shafii ak téere yi ki nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, euh, Abu Hanifata téere Malik moom mi ngi foon ndax nee nañ Muwatta moom agsi woon na fi euh, Muwatta mi ngi foon ñu di ko jàng naka noonu itam Sahih Muslim mi ngi foon dégg nga léegi kii nga xam ne moom mooy Mauritanien bi lii la lii la seere wax ne Sëriñ Tuubaa daf ko wut la woon ay téere yoo xamante ni mooy téere masaayibul ar téere masaayibul arbaa yi léegi nag Mune, ta te jamono yooyu ah, jamono yoyu téere umul amul fenn amul fenn fenn fenn lu may misra Égypte dong la mën ala nga ko mën amé ta nak nag Égypte ci jamono yooyu mënoo fa dem lu ne da nga da nga ndox war ma daari am pas pass rek li lepp ñu ngi koy nettali ci anna fakhatul de Denga, muy wax ne man ma daari di dëgër pas-pas rek dal di jéem a manam ndigalu sëriñ bi daal su ma ko toppee moom li ci bëgg ko ci am waaye ca lay nettali wan dem na ba jënd téere ba ñëw jébbal ko sëriñ bi boo demee ci an nafaxaatul miskiya fi siratul bakiya dafa wax ne wala ma ataytu an chattu sayx xafisahullah qasidati al muhazaba al raiqata al alfazil mustazabara min al kan dafa wax sëriñ bi ne ko xus dafa xus ha لا يخاف جليسها خطأ اللسان وزلة المرتاب فاشرب هنيئا كل صفح بارد يصفي الصدى من بحر كل كتاب انظر تساني فالصريف المرتدى الشافعي خلاصة الأقتاب نكو إندلنا لا تيري تيري كيغا خامنتيني موم موي آه، سريف با دي آه، مرتدى كان غرم كوك موي كان موي امام الشافعي nee na ko indil naa la indil naa la téere imaamu Shafii mu ne ko wal xan wal xanbali axattuqa xuskubahu wa aba xanifata sayidal sayidal xuttaabi mu ne ko téere abu xanifata indil naa la ko indil naa la itam téere Ahmad ibnu Xanbal dégg nga ko laa zilta taksifu an kawaa'ibaha lana إن تحتجب أزيال كل كعاب هذا مريدك قد أتاك بكل ما يجلو صدى الأذهان والألباب ما زال يفري كل بحر تعمه في الحلق واللهوات تعم الصابي دنجا من حتى سنة من أرض مصر لم يدع فيها كتابا بعد طول تلابي فأتيت منها باللباب إليكم وتركت ما قد كان غير لبابي mi ngi wax fi ci gatt rek wane ne sëriñ bi indil na la téré yépp yo xamante dal amon na njariñ bépp téré bo xamante dal euh am na njariñ bàyyiwuma ko fa ginnaw nak bima ko sakko lu yag yag nak euh téré yo ci manam la cey lubbu lay lubbu eh, ci xam-xam ma nga ca rek man indil na la ko yama fa bay dal moy ya nga xamante du du lubbu ba deug deug deug deug nga du lubbu ba deug deug kon wan na ko ne manam imam téré imam Ahmad ibn Hanbal indil naa la ko téere imaamu Shaafi'i indil naa la ko téere Abu Hanifata indil naa la ko téere wax Malik moom waxee noppi dégg nga te ku xam na ne masaahibul arbaa ñoom ñooy sawaadul axsam ñoom ñooy ahlu sunna wal kon léegi ni ni ngay jàngate yi fii mooy bu fekkee ne maanaam mag ñi jotoon nañ ci waxi euh, euh, téere yi imaam Abu Hanifata jot ci téere yi imaamu Shafii yi jot ci téere yi imaam Malik jot ci téere yi imaam Ahmad ibn Hanbal mi nga xamante ni wahabi yoon yi moom la ñuy tuddoo <coughs> loolu téyewul ñu continue daal nekk ci eh, mashab Malik loolu li muy tekki mooy lan mooy mag ñi li ñu nekkoon dañ ko koo noon ñoom wahabi yoon yi nag dañuy war di nar di wax ne mag ñi li ñu nekkoon ñàkk xam moo leen ci bàyyiwul fekk safaan ba moo am. li tax moy, mag ni jang nañu risala de jangon nañu risala muy wax ne yalla sunu borom tabaaraku taala ma nga ca aras yok ca bisaatihi mag ni anuñ ci lolu dañoo gëm li nga xamanteni mom moom la achariya di wax lu tax mooy dañ ko tan parce que dañoo xamne lolu dafa jégué tajisi si ñu ñu ñu bokkoon nga kon mag ni liñ nekkoon dañ ko tan waye du ak ñak xam Euh, damaa yaakaar ne képp koo xam ne danga ngaa yaakaar ne mag ñi dañoo xamutoon lu ñu war a xam moo tax ñu nekkoon ci liñ nekk benn nga xam ba pare di tay taylu wala boog nga doon gone goo xamante ni yow xamee woo buñ bojj ak buñ boxam moo tax ngay wax li ngay wax waaye mag ñi moom liñ nekkoon moom lu ñu tànnoon la waaye li waroon li ñu waroon a jot lépp jot nañ ko ci ay wàllu wàllu téere te téere yi nga xamante ni moom la euh, taalibu Serigne Touba bi di wax ba mu koy indil Serigne bi da lay leer na moom 1904 moom. jotagutoon ndax 1904 ci la bind téere bi te 1904 fekk na décret bi xaajagut a am ndax décret bi cent 1911 la wax ne moom la am te indi na ko téere bi ab diir soog a bind indi na ko indil na ko téere yi ab diir soo bind li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy téere bi euh, kon euh, jotoon na ci téere yi jotoon na ci téere yi kon loolu day wane ne maanaam. kii nga xamee moom mooy Mourtala Gueye gëstuwut parce que ñoom bokk na ci problème bi ñu am itam mooy téere yi nga xamante ne moom la mag yi bind dañ ko desee fonk duñ ko duñ duñ jàng duñ ko jàng ba xam ba xam la ca nekk. waaye itam ñi nga xamante ne ñooy wax histoire mag ñi duñ ko xam parce que keroog dégg naa ko mu sànni tuuma bu réeréeré mooy nee na ñun ñun histoire su mag ñi ñun xamuñ ko liñ ci xam mooy lan. moy li ñuy dégg ci ñi gam ñi nga xam dal daal da comme daal géewkat yi daal loolu la bëgg wax rek xam nga ne loolu tara gënu ko ñaw xolama yoy nar rek xolama yoy nar yow siñ basiru bind ci jaar jaar sëriñ tuba dégg nga ma ki nga xamanteni mom moy euh ki nga xamanteni mom moy euh, cheikh mohammed lamine dagana bind ci jaar jaar sëriñ tuba ki ñu doon wax légui tam borom miskiya bind ci nakono ñu tam yeneen tarixa yi fi nekk muy tarixa tijaan ak tarixa xaadir bu ci nekk maanaam kafa nekk maanaam bind na wane li nga xam ne moom ay jaar-jaaram moom doon doonul leer naññi ñu xam ko nga bëgg wane ne maanaam euh, jànguñu euh, jànguñu jànguñu li nga xam ne mooy siira siira mag ñi dégg nga al muslimoon fi Sénégal bi nga xamante ni ci la ñu yebal lam wax sax la Abdou Khadir si la wax sax dafa bokkut ak lam wax. te itam moom ab kat bu mag bu mag la ndax mënoon na wax ne décret bi 1911 la parce que bu waxé ne 1911 la rek da nga xamné concerné wul mag ni ndax fekk na mag ni boba téré ñu waroon a jot yépp jot nañ ko la ñu waroon ñu jang ko kon euh, tadalis rek la ci djublu kon li nga xamanteni mom lañuy wax dal moy képp ko xamné da nga yaakar ne mag ni lañ nekkon ñak xam mo lañ ci bàyyi woon li xaw yégo li xaw yégo li xaw mag ñi am na ci ñu ci bari ñi ku mel ne El Hadj Malick jamono yooyu dem na ba fa ak wahabiya ah, samp waaw dem na fa aji màkka xam la fa nekk lépp waaye daf ko daf ko daf ko da ko faa da ko faa ne yël xam nga màkka moom boo fa demee moom da xam la fa xew da nga xam la fa xew wahabiya ga fa nekk itam dan ko xam waaye ñoom xam nañ xëli ne ak wahabiya moy lii waaye dañ koo rafetlu woon dañ cee nekkutoon loolu la kon nag li gën ci ñoom mooy ñu wax ak yéen dañoo war a góorgóorlu ba woote seenu woote te bàyyi mag ñi ñoom am nañ plein droit ci juyoo ak mag ñi am nañ plein plein droit waaye nag bu ñu wël bii bu ñu ñëw di tumaal mag ñi di wane ne lii ñu xam tey jii nii ñoom dañ ko xamutoon loolu amul tey amul ëllëg in uridu illa al islah ma saratu ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh